dañuy wax ni dinañ rendre compte dinañ dinañ déllu ci nit ñi dinañ instaurer ce qu'on appelle le budget participatif ba nga xamante ni budget bi nañ lañ lañ ciy def askan ñi mo ñuy wax naka la. yoon dafa ne askan wi dañu am sañ-sañ si ñu leen di jox ay information pour ñu koy def nak yoon dafa ne nañuy afficher ndax vi commune smart lañ koy bëgg a defee ba à travers panneau bi nek sa quartier quartier bo mënta dëkk ci nord di nga meuna xam information yi nek ci commune bi yeb économie locale naka lañuy ñuy faxee ba Tëngéej Rufisque Nord dund manam ci Walu, walu yeb quartier yi dañu am vocation ñu faxe nu leen di en termes de financement ay mécanismes de financement approprié ak ay partenaires ci budget mairie bi jàppale leen ba je voudrais que la jeunesse de Rufisque Nord nekk la la la première jeunesse en Afrique de l'Ouest concurrencer les jeunes anglophones qui euh, gën kenn la watul dangu résidence ndax problème mu assainissement donc suñu première idée.